mbokk yépp waaye jiital ci nuyoo bi sëriñ Ngunda nga xam ne moom la yàlla teg mbir mi ci loxoom tey di ko ñaan su mboroom yàggal ko ci bis bi nga xam ne mooy bisu maam Cheikh Ibrahima Fall di bisu Baye Fall yëpp bis boo xam ne lu dëggal bis bu dëggal yu baree baree bari la ci ay wax ak ci ay jëf ndax Cheikh ay waxam dafa xorom ni ki ay jëfam te lu mat a jàngat la ndax ci ay jamono dafa waxoon mag ñi dañoo waxoon ni Cheikh Ibrahima nee na fii mbubum lii mbubum jaan la ak fi jaara fi jaaroon taxul kenn am dangar mooy xub ako wa taxul kenn am dangar soo bëggee dangal danga koy gis jaan mun la cappit mat waaye loolu lu muy wundu ak lu mu bëgg a wax yonent yi fi jaaroon dañ fay jaar ba jàll bàyyi fi ay téere te li li Cheikh Ibra bëgg ku ko bëgg doo yem ci loolu dongo muy garab yi suñ boroom sàkk ak xeer yi ak jamaadaat yi mooy yi nga xam ni dañuy amu amuñ bakkan waaye dañu noyyi mooy suñu wax nga koy dégg malaayka yi suñu borom yi suñu diisoo nga koy dégg jinne yi suñu wax nga koy dégg loolu koo am wala ku ko bëgg bëgg nga yite ju kawe waaye yëmu ci bëgg loolu sax danga bëgg far yow say say donga say taalibe di foontoo loolu loolu yite ju kawe la moo tax mu jóg sunu borom affecté ko ci kër ci kër Serigne Touba. wala mu affecté ko ci Serigne Touba ndax booba kër amagul bi ko fa affecté nag am na ci téere mi moom sëñ Bamba yu mu waxee. nawaytu an ahbudaka fi yi loolu jeexal nay wax dama laa bëgg a jaamoo ci liggéeyal yoon bi sallallahu alayhi wasallam loolu nag ku ko wax ñu defal la ko ba pay ga war a ñëw wala ba pay ga ñëw war nga am keneen ko la koy defal yewet bis bi ku ko doon def sëñ bis alxuraan ku koy def tey waaw <laughs> oh, mango nag bu amee loolu la seex bi doon wut ba far mu am ko ndax dañu woon yàlla moo ko ne demal sëñ bamba moo la moom su fekkoon bis bi amul kon wax ja ñu bari danañ ko nattable tey hmm? waaw ñu bari danañ ndax ki yàlla moo ne koo nangam mu dem ba sunu boroom seex daa dem ba mujj gi fi doon liggéeyee ngir am yàlla muy tërbiya daa dem ba li mu doon liggéey moo ko mujj tere boppam ndax daa mujj dem ba su jubee garab bëgg koo laal garab gi mu dégg muy tudd yàlla sëñ bi ni ko léegi bàyyil garab yu tooy yi tey dem ci garab yu dee yi bàyyi soo def naa noonu la soo demee ci xajaa ibul xafaar bu sëñ mu maam ngu nañang ba mu bind li ma la wax danga ko ci fekk waaw sëñ Tuubaa xamal xamal ko ni law kaanat dunya fii xaraarin axtaaka bu fekkoon àdduna day sax ma jox la lépp waaye lu fi baax rek ñeel na la loolu la ko suñu borom fayee kon liggéey bi mu doon liggéey ci kër Serigne Touba jaamu yàlla la bu leen jàpp ne Baye Fall dañoo ne ci lenn lu ak jaamu yàlla déedéet ci jaamu yàlla la ndax ñëpp xam na ni docteur bi faj soxlawul ku ku dàq naan médicament soxlawul lu dul ko gën a wér te wér nag buñ ci bu ñuy wax mooy imaan dëgg dëgg dëgg mooy jëmi Cheikh Ibra ji ak ñi ko gëm ndax ñooy gëm te gam-gam le leen na ñun topp ñu xam-xam bu ñun topp xam-xam lu ñuy jëf lu ne foofu lañ koy teg waaye ndigal lañuy ñuy topp ndigal nag ki koy topp mooy bu ñu ko dugal ci géej gi du ne di xool ba xam ndax géej ku ci dugg da ngay lab wala da ngay nangam déedéet moom kak ko wax lay xool ndax iblis li ko alak mooy bu ko yàlla digalee daa xool fa ndigal la jëm muy sayidna Adama wa is xool naa li malaayikati sijudoo li Adama fa sajadoo illa iblisa aba iblis moom moo bañ lu tax daa xool ndigal la fa jëm ndek ndigal bu ñu la ko dug digalee xool fa ndigal la jóge Seex bi daa xool fa ndigal la jóge muy boromam moo tax mu topp Sëñ Tuubaa malaayika yi nag biñ toppee biñ defee noon ak seen borom ba léegi seen mbir a ngi dox waaye iblis moo ko defoon ba léegi dafa wàcc ndax ba Seydina Isa juddoo lañ ko wàcce ci ñetteelu asamaan moom moom Iblis waaye ba Seydina Muhammad juddoo nag lafar far wàcc moom far benn mo bu ma bëggee taxaw am na fu koñ bu muy taxaw wax ak boroomam waaw ñu xool nag Serigne Touba muy fekkul Serigne yonante bi sallallahu alayhi wasallam li ko yonante bi may ak Cheikh Ibra moom ndax war naa yaafus moom mi gisub Serigne moom. Hmm? Serigne Touba fekk fu yonante bi. dalla ni yàlla ala muhammadi waxaada muhammadu wala muhammadi li samadi wala waxaada nii muhammadu ndax muhammadu faaxil la foofu faaxil nag ci atteem garaam ñi jàng garaam bi xam nañu mooy rafaa kon waxaada nii muhammadu li samadi waaw sëriñ Tuubaa fekk fa yonent bi lim am bi mu njëkkee def lextikaaf ci daara xudóos bi ko lay gisee dani ko ñii ci sa ginnaaw ci laa bëgg a bokk muy ahlu ba mu ne ko ñii moom bokk ci faat naa tey bu ma sa yoon yow li dana ko njëkk wax ne ko li nga bëgg comme ne sa bàyyi salexe si sëñ sëñ sëñ ko li nga bëgg ma sañoon da ngay waaye bopp joo xam ni doo ko bëgg di yàqule ndax ku ko mas a bëgg yàqule te yow bëgg nga mu nga yàqule yow nag sama sa diggante xutbu samaan des na ñetti weer wala juróom-benn weer defar naa la ko muy tey mm-hmm. waaw kooku loolu doy na garaat ndax yonent bi jóge fi ba am junni at ak ak juróom-ñaar fukk nga doog a gane àddina yow nga mën a dem ba janoog moom lool rek doy na garaat waaye sëñ bi li mu bëgg dafa ëpp loolu moo tax mu ne ko man bëgguma loolu kon loo bëgg mu ko ñii nga ànd laa bëgg a bokk dem na ba ba wax ne faaxoon na leen ndax yu jaawiruhu kulli la wax xadiman lahu bihi bihi lo bihi kuntu saa xub lin wax kuntu saa nahi mujj naa jege ko lool te dama ko sori woon loolu lu ko may Pastef moo ko may Pastef mën naa yóbbu nit fu ne waaw mooy ku amul Pastef yaay weddi lu ne waaye ku am Pastef xam nga ne Pastef mën naa yóbbu fu ne nit biñ bi mu ñëwee nag moom Cheikh Ibrahima Fall kër yi ñu xam daa ci jaar bu dem ci yàlla yooyu moom da ko indi muy lu bees ndax goj ak baag ak xepp ak rado ak bale ak paan gu ñuy gu ñuy roote <laughs> loolu ci moom la njëkk a amee àgg ci yàlla ci ci façon boobu ci moom la njëkk a amee musta am waaw musta am bu njëkk bala ñoo xam ne nit ku baax la day am juróom-ñaar fukki at jaamu yàlla ba àgg foofu ñun rek li ñu Sëriñ defal ci ay ndaw ay ndaw yoo xam ni kenn weesagu ci ñaar wala kenn kenn amugu ci fanweeri at mën naa jàpp leen ci li Sëriñ Tuubaa fi Sëriñ Tuubaa jaar nga gis ko xam ne kii ku baax a ngi nii nan nga koy xamee ku bëgg a dem ci yàlla dafa am ñett yu soxla dafa soxla wéet waaw dafa soxla temps dafa soxla eeraas yi li ñu ngi waxi tubaab léegi ñett yooyu nag ku bëgg dem ci yàlla foo nga foo nga foo nga nga yóbbuloog ñett yooyu léegi ni ñu sëñ bi dimbalee ba ñu ñu mën a àgg te ñun ñett yooyu soxluñ ci benn ndax silu tuwasilu aqlaami ilallaahi xaabidan la wax bilaa xalwatin jërul ngay wéet di def xalwa wala ngay tëju ay fan kenn du la gis jëru ko xam nga nu ko defee ab talsam boo ko tëggoon tey ñi lastaar xam nañ la may wax nga xam ne soo soo waxee benn baat war koo mën a am million ngi yoon sax du tax nga jot temps bi nga soxla yow pour àgg sa borom waaye am na benn baat boo xam ne soo ko waxee day faw ko lim boobu nga xam du jeex moom la sëñ bi def ci xasida yi mooy lan sarmadan abadan fii kulli waxtin xataa xiin yooyu moo gën a kawe lim hmm? moo gën a kawe lim moo gën a kawe nga naan nangam boo ko defee nangam yoon àgg àgg wala am li nga soxla jur ko boo nee sarmadan yaa ngi commencé yéeg ci temps suñu borom yow ndax wa inna yawman hinda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun benn bis ca moom mooy junni at fii kooku foo bëgg a dem tam foo jaar dafay jafe léegi nag loolu la sëñ bi def ci xasida yi ba tax mu wax ci lim ci wax Cheikh Ibra moom lay léeg mu def ko sax ci aw sa yu mat wala léeg-léeg mu def ko sax ci aw daal la waaw sëñ sëñ sëñ Baara Diop sëñ Baara Diop baay ma soir allo si bi lay fandar ne fii ci ngaabu waaw li nga waxoon léegi dafa am solo. sëñ Baara xam naa waaw dama fa dama mas a nettali ci ay jamono loolu war naa ma 2000 wala 2001. mu ne ma dafa am mbéy di woowu sëñ bi bind ci buy dënnu. ni foo ko roof dënnu dafa wàcc ba ko déggee sëñ Cheikh yow dañuy hee hee sëñ Bamba daa baax rek waaye bantum ger rek foo roof dënnu dafa wàcc. waaw <laughs> mooy tafakkar jamili ma ngoog fii ka iskunta nutfatan wala tansa taswiri li sax si ka fil asa ba ko si waaw bokkun waasikan bii fii umóori ka kula sa ak fii ka min ama taxaafu ma tax xam nga bi ko seex wasalim illayal amra fallam bi anna ni san fi ak kami wa faluma asa waaw san fi fani bantum ngeen xam nga bi ko seex ba déggee lu mu wax mhm. dani xéxé sëñ Bamba daa daa baax rek waaye bantum ngeen rek foo ko rof dëm du fa wàcc kon dégg nga li ma la wax léegi <laughs> ci kori dong lañu ñu mën a gisee hmm? kon nag nañ gën a yeewu te xam ne Cheikh Ibrahima li mu doon jàngal mooy lan te xam ne lim doon def bañ gërëm ko mooy lan ak lu tax ñu gërëm ko kan moo ko affecté ndax buñ la affecté fii ci rajo yii nga dem dawale sare da ngay sonn waaye doo siiw ah ñoo ko gën a man a jariñoo mhm. ak dunu daa ñëw wàcc ci daara yi maam Saliou Fall mhm. réew bi teg nit ak benn mhm. ko boo ko baatu déggee ci la bind xësu déggee nag jox ko maam Saliou Fall niñ ko fu ñu ko roof doom ak dënn dafa wàcc doxal Saliou Saliou Fall suñu Bàmba daa baax nag ndax rakam na ko defal waaye bantum yer doy na waaw kay Fall <laughs> xam nga xam nga loolo moo tax sunu borom ki mi ngi romb xam ne ci biir këram. Mm-hmm. du ko bàyyi xel te fekk lu ko amal njariñ la doon. Mm-hmm. loolu nag ci la ñu bi di yee ñun ndax biig damaa wax fii ni dafa am ay jikko yoo xam ne yu fës la te mënuñ ko bañ am na jikko yoo xam ne yu nëbbu la te mënu ko bañ mm-hmm. yi fës mooy ñun ku taxaw ku ne foos a ngi sa biir. Hmm? ku taxaw ku ne. ab foos a ngi sa biir. te foos bi du xeeñ. waaw te kenn mënu koo bañ gis nga hôpital yi nga gis nii amul kenn ku spécialisé ci lépp soo demee ki faj bëñ dafaa ne ki faj bët ne fa ki faj yax ne fa ku ak la ngay faj léegi nag tawat yooyu nag doomu aadama sunu boroom wàcc ko ci àdduna du man a ñàkk cër yooyu am yu yàqule lekk waaye ku ko bëgg a faj da ngay dem hôpital waaye li ñuy wax rëy nag ak kañaan ak soxor ak li ñuy wax ngisal ak yéem jëf mm-hmm. nga xam ne ci ci ci ci kabaa'irul xaasina yi la bokk yooyu ku ko bëgg da dem ci ku mel ni ki ku mel ni Sëriñ Tuubaa nga xam ni wa nazaxnaa maa fi suduurihim min xillin ixwaanan alaa sururin mutaxaabilin ajjana loolu rek moo fa am sunu boroom ñi ajjana jëm préparé ngir ñu ragal yàlla mooy ñooñu ñi nga xam ni seeni xol amut benn feebar bu ci ne li olof daa wax ñaax ñaax mooy tool bu bari ñax tool bu ñax nag mi ngi mel ni ab mi ngi mel ni xolub doomu aadama bi ñax mi ci ne mooy yii soo ko bayee rek tool bi leer te loolu ki koy bay mooy Cheikh Ibra akum sëriñam loolu la doon jàngale moo tax ku dégg faaw nga dégg loolu ku bëgg dem faaw nga dégg loolu ku bëgg dem faaw nga jëfandikoo loolu kon ñu daal di waaw min kadari dunya waaye loolu nag daf moom moo sëñ Tuubaa moo bind ci boppam ni sunu boroom daa bokk ci kiimaane yont bi sallallahu alayhi wasallam xajaa min hajaa ibnillaahi boo demee téer bu ñuy wax mun a yusu dóor ca mujj ga li ma wax ko ca daa bokk ci kiimaane yonent bi xarnu bu jot da koy indil benn wàlliyu boo xam ni mooy taxaw représenté moom yonent bi ci kaw suuf nee na xarnu bi nag sunu borom moom la def moom moom moom moom Serigne Touba moom la def muy xutbu jamono ba dinay tukki yonent bi moo moo ne ko moo ko bigal ci ne ko fas tax bi maa tuumaru jëma sunu borom waxoon ne ko rafaatalal naa la ko ne ko xam xamalal murid yi woo leen ci ne leen ni ñëw làqu ci yow nga dimbali leen moo tax mu sañ a wax ni li kulli man bi taxal laxan na jaa waaw ndax yàllaa ko jox yonent bi yonent bi rafaatale ko ko moo tax mu mën a taxaw sañ tax wax loolu wax wax wax bu jógee di wax bu rëy daa bu la neexee daa am ñoo koy wàññee ba mën a dégg xaj ci bopp nit ki. bi an osariha sunu borom moo ma digal ni ma leeral ni an nii malaasun waaw wa ximan maf saxo ab wiiruwaay laa ab làquwaay laa ku képp ku bëgg yiw àddina ak alaxira man araada fii man araadal xayra fii kete daare ni fal yalus bii na ñëw wéeru ci man daal di wax na ku weeru ci moom wala ku wéeru woon ci moom ba yàgg nga jóge ci la la ca mën a fekk moo tax wax bu jógee saa bu jógee doon bu rëy yaa ko mën a wàcc ba mu mën a xaj bopp nit sëñ Blaat bi waxee ni képp ku mooy la diw saw carte war nga sëñ Tuubaa sëñ Moussa Fadi kenn nee na dafa tëdd ba guddi sëñ Tuubaa feeñu ko ne ko li fi desee Abdou Diouf nga koy àndal xam nga loolu loolu wax ju rëy la waaye mënut xëy wax ko moo tax mu waxee noonu ni kon comme sëñ Tuubaa ko wax loolu kon ku mooy la war nga sëñ Tuubaa <laughs> waaw man ma tëjee benn baat bu gàtt rek damaa waxoon léegi toppuñ xam-xam ndigal la ñuy topp loolu nag su ma ko waxee dama ko bëgg a firndeel ndax jamono xam nga dafa xat ndax xam-xam suñu borom moo ko moom ndax moom wa anna allaha bi kulli shay'in hilman qad ahata allahu bi kulli shay'in hilman mooy lépp lu ñuy xam nañ ko nañ ko war a xamee nga xam ko xam ko xam mënut a soppiku loolu su loolu suñu borom moo ko def bi mu ko jëlee jox ko malaayka yi nag bëgg ni day bind nit ci ñoom xam-xam bi ñu xam ñoom dañoo taxaw di contester seen borom ni ko kii ngee bëgg bindi soo ko bindee bu demee ci àdduna dafay tuur deret dañ fay reyante loolu amul loolu am na xam nga kon malaaka yi am nañ xam-xam waaye suñu borom moom ay waxam tënk ko borom ku bëgg atte ci ay waxam da xam ne sa yoon seer da nga xam ne sa yoon néew ci suñu borom li neex lay def waaye gis nga bi mu bindee nit andi ko fii ci àdduna malaayka yi ñoom tur yi suñu borom bind teg ko ne comme yéen a ngi ma jaay xam-xam kaay ma bind ma bind lu ngeen xamul bind naa xam-xam bu ngeen xamul ay tur ay tur laay bind teg ko fii laaj leen ko yéen ak na Adama mi bëgg bind su ngeen xamee tur yi li ngeen wax laay def su ngeen ko xamul nag li ma bëgg kenn mënu moo ko tee def xam-xam bi mu leen joxoon moom rocc ko moom yàlla nga xam ne xamatuñ dara subhanaka laa xilma lanaa illaa maa xalamtanaa lañ wax ba mu leen laajee yaa an bi hum xebaar leen kon li ma bëgg tur waaye fa la ma an boxam bi asmaahim xaala inni ahlamu xayba samawati wal ard kon daa am loo xam ne boo déggee koy wax di moom ca lam jàng lay wax xam nga ni ñi jàng grammaire min xablu am na foo xam ne grammaire nangu ko te pourtant min lillahi lillahi al amru min xablu wa min am na min xablu min xabli la grammaire nangu te boo demee ji téere bi da nga fekk min xablu wa min du lu tax miim waaw kay léegi nag bu bu daafee du ca bokk bu fekkee dafa laaf waa déet du ca bokk <laughs> ñu bàyyi xel loolu bu baax a baax kii wax fi mu toll rek lay waxe yaa ngi dégg te mënoo xam lépp sëñ bi ay waxam dima gore mënu ko dégg mag sax mënu ko dégg waxuma laa wasalaamaaleykum wa rahmatulah